ah jërëjëf on a déjà une impression de joie kontaan nañu trop parce que ñun ñoo amoon tout ñoo gagné woon tournoi bi daaw dañoo buggoon donc conserver ko donc on a réussi à le conserver donc félicitations à l'équipe adverse qui nous a vraiment fatigués. mais lu ñuy ressentir mooy de la joie de la joie d'avoir participé ci tournoi bi d'avoir rencontré les confrères des autres banques les assurances et d'avoir passé de bons moments on a passé un mois et demi de faire les joutes sur le terrain jot nañu xamante jot nañu jokkoo et c'était ça la finalité du tournoi bon L'Oeil du Tigre mention spéciale mënuñu du leen mënuñu lu del du leen sant di leen gërëm ndax gis nañ seen taxawaay gis nañ seen àndandoo waxuma sax ak banque bi mais ak ASC ndax Lady Tigre lu ASC Bisik organisé même bu demulee final sax ñëw na taxaw ndax daaw bu ñu fàttalikoo demi final lañ dem mais c'est comme si final lañ demoon ndax Lady Tigre nu mu ñëwee woon wane boppam donc mention spéciale à Lady Tigre à ñi présenter Lady Tigre yëpp mais particulièrement à vous monsieur Fall. c'est la deuxième année et c'est la deuxième fois que la Bisik remporte ce trophée ce n'est pas un hasard la la Bisik a monté une équipe de classe exceptionnelle. une équipe qui sait jouer au football, une équipe qui sait se, sait mesurer à ses adversaires du secteur bancaire et des établissements financiers, et une équipe qui sait garder la sérénité pour remporter des victoires match après match, sans aucun doute. Je vous remercie.